الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ñu ngi ci téere bi ñuy wax xilaasu dahab fi siirati xayril arab doon ci muy taalif bu maam Cheikh Alxaaj Malik def radiallahu anhu ci jaar-jaaru yonent yàlla muhammad tey ñu ngi ci alfaslul ashir mooy faslu bi nga xam ne mooy fukkeelu bunt bi fi dikril mustahziina wa man kaana ashadd al adaa linnabiyi sallallahu alayhi wa sallam wa dikri tacdibi almustadcafi almustadcafiina min almuslimin wa dikri hijratay alxabasha faslu bu gàtt la waaye dafa gudd lool ndox sëriñ bi daf ko condensé ba nga xam ne daanaka euh, bayt ci bariwul waaye njariñ li dafa bari lool ci ñetti tem daal ci wax ci gàttal lay wax mooy yonent bi yàlla yónni na ko mu nëbbu ñetti at yàlla wax ko ne demal ci say mbokk mu dem ci ay mbokkam yàlla wax ko ne demal ci sa famille yépp waa Makka fasda bi ma tu'mar wa arid anil bu dem ci jabalu abu qubaysin wax waa sabaxa ba ñëpp ñëw mu wax leen li ko yàlla yónni euh, loolu nag du jur jàmm mag ñi nag jóge ci ñi xale bi daf ñu yàpp càmbali nag di ko lor mook ñi mu àndal façon lorin ga ak ña doon lor boobu mooy bu jëkk bi wa man kaana ashadda aza ashadda al aza ak ñi ci gënoon a acharné ci lor yonent bi ak gaañ ko ngir toroxal ko beneen bi mooy wa taazib al mustadafina min al muslimin ak façon façon yiñ daan mbugalee jullit yi gëm yonent bi te amuñu doole ñi ciy doon ay doomi notable dinañ rus seeni bàyyi ñooñu dañ leen di toroxal rekk ci wax waaye ñi nga xam ne ay jaam lañu ak ay jigéen dóor yu metti lañ leen di dóor ngir bëgg ñu bàyyi ci seen seen diine ñëwaat ci diine xërëm ñoom ñu bañ action boo gis nag dina jur réaction yonent bi bi dóor yi mettee te yàgg mu jox leen digal ne leen kon dem leen ngeen exilé fële ci Éthiopie ndax dégg nañ ne buur a nga fa boo xam ne la yuzlamu indahu ahad kenn du tooñ ci kanamam du nangu ku tooñ ci kanamam kon dem leen foofu muy asxamata an najaasi kon fasl bi loolu lay jàngale xëy na gàtt na ndax ay tur rek la fi tudd waaye daanaka ku ko doon sharxa di nga jël temps bu bare bare bari euh, loolu nag li muy jàngale moo di képp ku yàlla jox mission wax dëgg yàlla war ngaa xam mission ba ak coono ba ñoo war a ànd euh, yàlla nee na yonent bu ma mas a yónni boole naa la ak ay noon yu la mat noon ñu di la sonal di la sonal xata yaqula rasul walladina amanu maahu mata bi li muy gëm-gëm yàlla yonent ba dina mujje jaaxle ba ne waaye yàlla sa ndimbal kañ lay ñëw képp koo xam ne nag yàlla jox na la mission mas ngaa wax mata nasrullah ndax jaxle loolu nag mooy dundu missionnaire yi yëpp ndax yàlla moom cëram lépp daanaka coono ngay muñ mu soog la fay bismillah rahmaani rahim sëriñ bi ne ashaddu durran min al aada abu lahabin wal aswadaani walidun xaarithun bihimi nadrun zuhayrun abu qaysin nubayhu munabbihun wa uqbatu wal aasi abul xakami wa mutcimun wa ubayun macrukaanata malikun umayatu ahlul bagyi wal qasami sëriñ bi dafa ne ashaddu ñi gënoon a tar ñi gënoon a acharné durran ci lor yonent bi xam nga ñi de baaxuñu ñi ci gënoon a sawar ci lor yonent bi minal aada ci ay noonam yi nga xam ne ñoo weddi diineem ka jiitu baayam la mooy abu lahabin abdul uzza bi nga xam ne góor gi shaybatal hamdi moo ko jur waaye nag bokkul ak abdullah ndey waaye moom lubnaa moo ko jur te abdullah ku ñuy fatimatal maxzumiya moo ko jur bintu aiz wal aswadaani ak ñaari xale yu tuddoon aswad ñaari aswad yi kenn ki aswad ibnu matlab la tudd waaye keneen ki daf ko jege lool ndax aminatu bintu wahbin frère am bu mbokkal ndey ak baay moo tudd abdul yaxus abdul yaxus boobu nga xam ne ndijaayu yonent yàlla muhammad la moo jur xale bii may wax muy aswad ibnu abdul yaxus sëriñ bi dina ko tudd ci axwaaluhu ci kanam ci fas yi ci kanam ndijaayu yonent bi waxee ay bàyyi tëxam ba pare dina wax ay ndijaayam nijaayam boobu axwaalahu aswadun abdul yaxuusi am na ku ñuy wax aswad am na ku ñuy wax abdul yaxuus abdul yaxuus mii rakk ji nag dafa tudde magam doom ñu koy wax aswad ibnu abdul yaxuus kooku noonu yonent bi doomu bàjjenam la xam naa nag doomu bàjjen bi daf ko utiliser def ko ak noonoo dalaam saboot saboote yonent bi fu mu tollu nekk waaw yow yow yaa ne yéen a gën ci kaw àdduna yéen yéen ay buur yi ëllëg keex keex keex di ree ne day saboote xam nga doomu bàjjen gi la utiliser ba alku dem safara benn yoon walidun ak walid ibnu mughiratu walid ay yii di yàllay wax ci alquran innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar góor googoo ko moom moo jur xaaris moo jur euh, afwan moo jur Walid ibnu Mughira Walid ibnu Mughira moo jur Walid dafa am doom ji Walid moo jur Abu Suleyman muy Xaalid ibnu Walid a xaarisun góor gu ñëw xaaris ibnu Qays bihi bokkoon na ci ñi noonu yonent yàlla Muhammad daan ko lor ak ku ñuy wax Nadr ibnu Xaaris Nadr ibnu Xaaris moom man comédien laa ko jàppe woon parce que da daan wër dëkk yëpp jël seen information bind ko bu yont yàlla Muhammad toogee ci kaaba gi di jàng alquran moom mu dem fële naan mbooloo mi kaay leen kaay leen ma wax leen ala la une yi xew ci diggante Perse ak Rome ci kémaan ya fa nekk ne ne day jéem a suul noonu alquran foo déggee alquran nag rek naan waqaalu asatirul awwalina euh, waa ji moo ko waxoon Nadr ibnu Xaaris mi Zuhayru bi bii euh, mook soxnaam di umu salamata ñoo bokkoon ndey ak baay abi abi umayyatu bnu mughira muy góor ga waxoon ne ko kaay nga tegal ñu xajarul aswad góor googu di abi umayya waxoon nañ ne xaw naa jege téeméeri ndem matu ko woon ku guddoon fan la doom bu ñuy wax ku daan saboote yonent bi la sallallahu alayhi abu qaysin abu qays bokkoon na ci ñi daan sabote yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ibnu fakiha ibnu mughira moom it doomu baayu góor gi euh, doomu baayu xaalis ibnu walid la nabi ak munabbi ñaar ñooñu ñoo bokk ndey ak baay góor gi xajjaaj moo leen jur moo tax ibna xajjaaj lañ leen wax doomam bu ñuy rayta moom la amru ibnu as doon denc keroog ci xazwatu Uhud rayta boobu bintu bintu Hajjaj bintu nabi Munabbah bintu Hajjaj moom ak uh, Hind bintu Utbata demoon nañu Uhud ci xare ba ngir jéem a toroxal yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa Uqbatu ak Uqbatu ibnu Abi Mu'ayt kii yonent bi mel na moom mii ak Nadr ibnu Haris la joxe ndigal ñu dagg seen bopp ak seen baat keroog ci xaswatu Uhud ndax yu bon yu mu def danañ ci ñëw léegi wala aas yi ak aas mi nga xam ne nii aas ibnu Hisham la moo jur Amr ibnu aas mi nga xam ne moom la yeneen yonent bi mu joon a def euh, gouverneur u Égypte ba l'islaamu Afrique waa ji liggéey na ci lu rëy baayam nag aas ibnu Hisham la tudd bokkul ak aas ibnu Wa'il abul xakam yi ak abul xakam muy abu jëhlin ñoom ñu ngi ko wax abul xakam ndax xel mu rafet nee nañu yonent bi nekk déedéet yow yaay abu jëhlin bàyyu réer yow yaay parrain wu ignorance parce que réer weesuwul yàlla yónni ma jox ma ay preuve yu wér te mënoo moo gëm mënoo maa gëm ba tey wa mut'imun ak ku ñuy wax mut'im ibnu adiy mut'im ibnu adiy bi ca kanam di nga dégg ne moom moo mujjee dalal yonent bi ndax nag doomu baayam la mut yi góor gi addi yi moo ko jur addi moo opposé woon baayu kii moo opposé woon Abdul Muttalib keroog ba muy xas gas teenu zam-zam ba mu bëggee rey doomu mi tam Abdullah góor gu góor gi addi ibnu Nawfal moo ko opposé woon waaw koo xam ne dafa opposé maamam ba mu dee bu ko doom ji opposé war na kaa metti mm. déedéet surriyatan ba'duha min ba'd moo tax mu ne wa mut'imun ak ku ñuy wax mut'im ibnu adi ibnu nawfal ibnu abdu manaf cay noonam la bokkoon wa ubayun ak ubay ibnu xalaf mook umayyatu ñoo ko ndey ak baay ñoom góor gi xalaf moo leen jur ñooñu ñoom ñoo moomoon bilal ci njaam mbugal ko mbugal yu metti dóor ko dóor yu metti mu naan ahadun ahadun wala ca xew xew ci ma rukaanata rukaana benn waaju amoon kartan la oh, rukaanata ibnu abdi yazid dafa njooloon a njool am doole ba moo ëppoon ñun ñi ñuy tudde fi roi des arènes dooleem nag tax na mu naw boppam benn bés mu dajeeg yonent yàlla muhammad daanu ba eh, àgg ci suuf ndeke jégg naa nit ñi nee nañu ab yonent nga mu ne ko waaw mu ñàkk lu muy def ne ko léegi nañ bëri moo ëppoon doole ci mag moom Malik ibnu Abdu Yazid léegi nañ bëri boo ma daaneelee ma xam ne yàllaa la yónni moom nag naw boppaam boppaama tax mu wax loolu ndax ba mu juddoo ba tey mësul gis góor gu ko féete kaw ku mu dóor benn yoon nga daanu yonent bi ne ko bu ma la daanee di nga gëm mu ne ko waaw mu ne ko bismillah mu ree ndax ni mu jàppe ne noonu la ëppee yonent bi te yonent bi du bëreekat te moom bëreekat la naka lañ songoo téere yi nee nañ moom dafa jekki-jekki ci boppam ci suuf xaw ma nag bëri na am dit waaye yëg na ne daal moom mu ci suuf mu ne eh comment lii la la nii lii na la nii ba yàgg jub mu nekk yonent bi naka defal li nga waxoon ndax yonent bi lépp lu nit wax mu xam ne loolu boo bu ko defee nga gëm moom jaral na ko euh, mu ne ko yow danga ma daan nii ba toog mu ne ko ah yaa ko gis de ci suuf nga jógee mu nekk ko non affaire dafa gaaw nañu nañu bërewaat mu ne ko boo daanee bu ma la daanee di nga gëm mu ne waaw ñu commencé bërewaat mu gisaat boppam ci suuf mu jóg ne noo affaire bi dafa am lu mu lu mu rax dugaat taxaw ne ko bii moom boo daanee ma xam ne dëgg dëgg yaa ma daan wax na dëgg nag koo daan ñetti yoon moom man ngeen bañ a bëreeti hmm. ñetteel bi nag bi mu gisee boppam ci suuf mu jug xaxataay ba daanu ci suuf ne na ne yonent bi moom moom rokaana njibar gi ñu waxoon ne man nga ko tey laa koy doogu gëm yow danga ma xoo ñàkk gëm yàlla dem booleeg nag di saboté yonent bi ak di ko toroxal sallallahu alayhi Malik itam Malik mii moom warul woon tudd Malik ndax boroom téere bi Malik la tudd Malik euh, moom it dafa doonoon Ibnu Batatila la tudd euh, dafa nekkoon ci ñi nga xam ne da daan ànd ak Abu Jahlin di sabote yonent bi Umayyatu ibnu Xalaf kii nag kii rekk ci àdduna la yonent Yàlla Muhammad euh, rey frère yonent bi giiru dundam benn nit la mas a rey ubay ibnu xalaf la tudd moom umayyate bi nag ñëw ak ndey bay sëriñ bi nag indi xabar ji ne ñii ahlul baxi ñooy ñoñ caaxaan beew wal xasami ak soxor dañoo bañ yonent bi ñu tudd leen rek ci tuddin bu gaaw góor gi walid ibnu mughira euh, waa Màkka dañ ko yónni ne ko daal walid ibnu mughira rakku pàppu abu jahlin la kon abu jahlin doom la ci moom ñu bokk giiru maxzum te giiru maxzum dañoo mas di wëjjanteeg banu hashim wax ne nañ teraanga gu am ci màkka rek waa banu hashim ñoo koy jël ñoom duñ ci jël dara waa màkka waxtaan ak moom ne ko mag nga te bi jaaw nga dañ bëgg nga dem ci xale bii muy muhammad waxal ñoog moom dëgg góor gi bàyyi ba yonent yàlla Muhammad nekk ci kaaba gi di jaamu boroomam mu sol lu rafet nag waaxu ne mboolam bu leen ànd ak man comme mag laa danaa mën a wax ak moom ñëw toog ak yonent yàlla Muhammad ne daal dama bëggoon tey ñu waxtaan wax digg yàlla dëkk bi coow li bari na trop te yow yaa ko jur ma bëggoon daal ñu xool nu ñu rafetoo ndax ay kilifaa fi ne wax wax daal ay waxam yu rafet yonent bi ne tekk rek ba mu àggal mu ne ko yaa abal walid isma minni du góor gi pare nga mu ne mu ne ko waa déglu ma nag jàng suuratul fussilat ne aoudu billahi min alshaitan rajim bismillahi rahmani rahim ndax yonent bi miracle am mooy alquran bi mu jàngee suuratul fussilat ba agsi ci fa in aradu yàlla nee na boo leen waaree bañ du mooyu fanzirhum bi saaiqatin misla saaiqati aadin wa samud nanga leen teel a avertir ne maa ngi maa ngi maa ngi waaja a wàcc mbugal goo xam ne moo raw mbugalu waa aad ak samut comme góor gi jot na information yooyu dafa tëb rek jël loxoom taf ko ci gémmiñu yonent bi ne dimbali ma bul yeggali dimbali ma rek bul yeggali bul yeggali ñoom xam nañ ni kii du wax lu dul dëgg comme commencé na jàng alxuraan muy déglu muy jàng muy déglu ba yàgg yàlla ne ko buñ la gëmul teel ma ka wax ma indil leen mbugal gu raw ga waa aat amoon ak waa samut góor gi tiit nekk subhanallah doy na doy na doy na yeneen ci bi arrêté góor gi jub dox dox dox mënatula dox tànka yi damm mu dem këram toog xalaat xalaat ne xale bi maa ko mag maa mag sax way juróom yàgg ci dëkk bi dem naa fu ne dégg naa lu ne mais billaahi ba ma juddoo ba fii ma toog mësuma dégg wax ju mel nii kii du xale ab yonent la am na koy wax ak moom ndax bu doon yàgg fi la ñoo ko fi gën a yàgg te mu mënuñoo wax wax ji mësuñu koo dégg ah abu jahlin toog toog gisuñu ko ñu def délégation dem fekk góor gi yaram bi yëpp changé yaram bi yëpp dee ñuy okkante naan mbaalu Muhammad dafa jibar góor gi daf ko jibar daf ko ak ni góor gi rafete woon xel xale yi ñëw toog ne ko waa papa boobu ba tey dañ la yónni woon te gisaatuñu mu ne waaw dama bëggoon ngeen toog ñu waxtaan daal yëfi mag laa bëgg a wax ñaar nag moo mën a am déglu naa xale bi wax na ba àggal waaye maa ngi leen di yëgal ne du nit wax jii ma dégg du waxi nit hmm. ñu ne ko déet waaye mu ne lenn mooy mën a am maa ngi yëg ne inna li qawlihi la xalaawa wax ji dafa am tem-tem benn guubu mu am wa inna alayhi la talaawa wax ji dafa tooy xeb ba boo koy dégg ci biir siddit yi lay dugg wa inna alaahu la musmir bu doon garab la kaw gi yëpp dafa meññ ak ay ay fruits yu neex wa inna asfalahu la mughdiq te suuf gi dafa tooy xeb bu doon garab la dañ koy roose mu am ingrédient yi mu war a am wa innahu yaalu maa ngi giñ ne wax ji ka kaw la jëm wala yola alayhi te dara du ko tiim góor gee seede lii nag mag ñëpp sëgg ne tas na suñu yaakaar waaw léegi papa loo ñuy wax mu ne lenn daal ñaar rek laa leen proposé benn bu njëkk bi mooy fatta bi ogu na ko topp lii kanam la jëm lii ma gis ma ngay wax nag lii ma gis kanam la jëm nañ ko teel a topp am sak ëllëg ñu ne ko il n'en est pas question il na ne pas question ñu koy topp xale bii duñ ko topp mu ne ñaareelu proposition bi boog bàyyi leen ko ndax day dem kii day dem mm-hmm. boo leen ko bàyyi nit ñi ñii xeex ñii xeex ak moom moom lu mu yàgga yàgga dina leen gañ bu leen gañee ngeen topp ci gannaawam am sax waaye bu leen ko opposé ba mu feeñ ci àdduna ñëpp dinañ xam ne ay mbokkam ñoo ko opposé woon la mu doon wax ñëw na mm-hmm. wañ ji du rafetul mag ñi génne am déception abu jëxlin nag comme rakku baayam la toog toog mënu ko muñ mu duggaat ci góor gi ne ko enveloppe bii de waa dëkk bi ñoo la ko dajale jox la ko góor gi nag ko ëpp alal amul ku ko ëpp doom am na amul am na juróom ñeenti doom yu góor bokkul ak jigéen ñi enveloppe bii daal waa dëkk bi ñoo ko daje dajale jox la ko mu ne ah ci lan abu abu jëlin saay saay la mu nekk dañu yëg ne fan yi ñàkk gu metti goo ñàkk ba demoon kër Mouhamed ne da nga fay yalwaan añ moo leen metti daal ñu xam ne sa daraja war na ëpp loolu rek góor gi tëb ne man di dem ci Mouhamed mii nga xam ne jërim la di di fa yalwaan añ boobu loolu la bëggoon hmm. parce que ah moom la ni ñuy wax de ndax ni ñu ko gëmee nii daanaka dafa mel ni du nen mu mer nag génn di xaatar xaatari ci dëkk bi pour wan leen ne borom wërsëg la borom alal la hmm. ñu nekk léegi abu jahlin naka jaru la méttit comme dëkk bi loolu siiw na fi ba pare da ngay wax wax joo xam ne day teggi li nga wax barki dem parce que li nga wax rëy na góor gi ñàkk lu muy def xalaat xalaat ne man mënuma teggi wax li ma yëg laa wax te mag laa ñu nekk nag mais faw nga wax dara parce que consensus lañ soxla fi ak ñaari weer aj ji dafa war a ñëw te aj ji arab yëpp dinañ ñëw te dégg nañ écho wu xale bi hmm. xam nga lu xew waxal dara comme yaay magu dëkk bi ñu man cee jàpp mu ne proposé leen ma ñoo ñu nekk majnun la dafa dof mu ne non laysa bi majnunin kii doful yàgg naa gis dof waaye kii ma toogal doful ñu ne sha'ir la no poète la mu ne déedéet laysa min sha'ir araftu shi'ra wa buhurahu xam naa euh, poésie ak euh, riim yi ci nekk yëpp kii mënul loolu ñu nekk kon kezzab la imposteur la day wax lu nekkul day naxaate mën a déedéet kii ku ko xool ak kanamam gu sell gu rafet gii nga xam ne ñoom ñuy okkante naan liñ doon wax a ngi noonu kii def ko jibar te da ka jekku ba yàgg ñu ne ko abu jëlin nag ne ko papa da ngay wax waxal lu leer mu toog toog ba yàgg ñu ne ko jibar la mu ne du jibarkat waaye wax naa leen ko ñu ne ko nag di nga wax position parce que nit ñi ñu ngi ñëw te bëgg nañu indi benn wax bu ñu wane ne consensus su mag yëpp ñoo daje ci ne xale bi lii moo ko dal góor gi na ah, comme mënu la ñàkk na wax ne saaxirun njibar la njibarkat la mais njibaram bi moom dafa modéré day njibar diggante doom ak baayam ba boo ko gisee dégg ko rek da koy topp doo faaleeti sa papa sa yaay góor gi foofu la mujjee daanu ak waxam juri ji yëpp foofu la mujjee daanu yàlla nag mel ni journaliste buy nettali nettali fee yi góor gi def yëpp ne zarni bàyyi ma yow Muhammad rek wa man xalaq ak góor gi nga xam ne maa ko bind wa jaaltu lahu ma defal ko maalan alal moom duudan gu bari ku tàllalu u bani na ma may ko ay doom suhuudan ñu taxaw ñu janook janoog moom wa ma hëttu lahu ma yaatalal ko tamhiidan summa yatmau muy bëgg nag an azida pour ma yokkaat déedéet doy na kallaa déedéet innahu fakkara góor gi dafa toog di xalaat summa qaddara mu nattale yàlla mooy nettali de summa qaddara mu net mu nattale ci xelam fa qutila yàlla ne na góor gi yàlla na deewaay kay fa qaddara xoolal rek ni mu ni mu xalaatee toog def nii sérieux nag moom góor gi yàlla ne su ma qutila yàlla na deewaat waay kayfa qaddara xoolal rek ni muy xalaatee nan non may leen ma xalaat xam nga xalaat bu rëy bii kay ku koy def waroon nga indi résultat bu palpable ba yàgg rek su summa abasa mu ñëkkal kanam gi yàlla ne dafa commencé dañ naan yàqal sa kanam góor gi ñëkkal kanam wa abasa mer su ma euh, basara bara mu xool xool ba yàgg commencé funki di rëy rëylu naan xale la su ma adbara mu wan gannaaw ak xalaat bu metti bi yëpp fii la mujje su ma adbara mu wan gannaaw diine l'islam wastakbara mu rëy rëylu fa qaala mu mujje di wax enfin naan in in in haada illa sihrun lii daal doonu lu njibar goo xam ne yu sër yonent bi moo ko créel boppam in haada lii daal nekkul illa qawlul bashar lu dul waxu nit kese yàlla ne ah bon loolooy résultat wu xalaatam sa uslihi maa ngi giñ ne dinaa ko jaaruloo saqar saqara bu ñuy wax saqar bu ma adraka ma ndax xam nga saqar nu mu mel yow muhammad maa ngi lay xamal ne laa tubqi du bàyyi dara dara dara laa tubqi du desal wala tazar du bàyyi léeg-léeg nga dégg ko naan kii du ma ko may dara yàlla nee na saqar ku fa dugg du la may dara hmm. góor gi lañ ko wàcc ci moom Walid ibnu Mughira moo jur góor gi euh, Xaalid ibnu Walid nga xam ne kenn la ci lislaam kaawam kooku kon tegu na fële hmm. ki ci des mooy Aasi ibnu Hisham moo jur Amr ibnu euh, Aas kooku yent yàlla Muhammad dafa dafa am doom bu góor muy Qasim mu faatu mu amaat doom bu góor bu ñuy wax Abdullah mu faatu te arab yi doom bu góor mooy seen dund mu jekki-jekki dajeeg abu lahab nga ko waaw an seen waa ji waay mu ne ko waa ji de euh, doom sax dafa mujje dellu mu xaxataay ba daanu ci sa suuf ne muñal leen ka innahu ab tërun ab tërun dafa dog gannaaw euh, nit ku euh, dog gannaaw xam nga nit ku faatu ku ne ku faatu ku ne sa doom moo lay donn hmm. nee nañ képp ku bàyyi doom bu góor deewoo yaa ngi dundaat ndax doom jooju mooy continuer sa euh, sa sa njur mais yonent bi góor gi ens ne leen noppi leen noppalu leen parce que bientôt dina dee te du am ku ko donn ndax ab tër la yàlla waaj yónni jibril ne moom moom mooy ab tër inna ataynaaka al kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shaani aka kooku di la ñaawal di aas aas yi ibnu hisham huwa ab tër moom mooy ab tër ndax dee moo ko teree dugg safara la ki ci def mooy xaaris ibnu qays moom ku yéeme woon moom daanaka farceur la woon day def bu demee jënd benn xërëm ne da koy jaamu bu demaatee ba gis bu ko gën a rafet sànni boobu jënd beneen <laughs> day jaamu day jaamu bu demee ba ak beneen bu ko gën a rafet sànni boobu jënd beneen yàlla nag loolu daf ko ay ree mu ne yonent bi afara'ayta allazi ittaxada ilaahahu hawaahu xanaa yonent bi gisoo waaju dof ji nga xam ne mu ngi ci màkk te moom maanaam eh, bànneexu bakkanam lay jaay jaamu yàlla jum gis daal nga neex ka rek mu jënd la jaamu la ba yàgg gisaat leneen jënd la jaamu la kooku nag yonent bi sallallahu alayhi bi jibril ñëwee ci moom dane ko ba yàlla wàcc ci moom innaa kafaynaaka al-mustahzi'in nga ne ko mën daal ñi ma sonal waa jii bokk ci ndax daf may saboote fu mu toll muy Xaaris ibnu Qays Jibril dafa joxoñ bakken bi xam naa Jibril dafa taxaw ci kanam gisu ko mu joxoñ bakken bi rek waa ji mel ni ku ñu xabtal fekk benn garab gu am ay ndég ci wetam mu di ci dóor bopp bi di ci dóor bopp bi ndég mi di ndég yi di dugg ci bakken bi ba fa la doon deewe moom te xamul lu koy dóorloo ko aswad bii ma wax ibnu abdul yaxus nga xam ne nee naa la doomu ndijaayu yeneen ci yàlla muhammad la moom it da ko daan saboote bu masaana fekk saxaaba yi toog mu ne ay waay buur yi ëllëg yaa ngi nii waay yéen de yéen a war a donnu àdduna bi nee ngeen keex keex keex te li muy wax pourtant dëgg la ndax yonent bi da waxoon ne dinaa donn nguuru Faris dinaa donn Ruum mu gis na ñoom Bilal ak ñoom Amir ibnu Fuhayrata ak abu ubaydat ibnul jarrah ak ñooñu suhaybur ar rumi ñooñu nga xam buñu dëkkee duñu añ buñu añee duñu reer mu naan waaw yéen yéenay buur yi ëllëg yi keex keex keex et pourtant ñooñu mu doon wax kenn ku ne mujje nga doon gouverneur ci benn pays te moom fekkew ko aswad ibnu abd matlab muy aswadaani ñaari aswad yi moom dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla wàcc ci ñoom yataxaamaz wa iza marru bihim yataxaamazuuna moom bu masaana rombanteeg jullit yi day okkante ak mbokki yéefaram yi di leen piis na leen xoola sa seen waa sa sa gaa yi ak seen yëre yu cëkk naan kex kex kex kex jëree yàlla ne innahum kaanu qabla zalika yadxakuuna daal nañ leen ree al yawma alladina amanu min al kuffari yadxakuuna ci moom la wàcc moom da doon ree jullit yi di leen saboot Abu Lahab nag moom duñu wax ay waxam parce que moom Abdul Uzza kooku moom li nga dal dafa seddul moom bokkoon na ci jikkoom ju bon ndax mu ko yonent bi ñoo dëkkoon ñoo janoo ay néeg day fanaanoo pot moom góor gi bu ko fanaanoo ba jug pot kay ku ko fanaanoo foo ko war a tuuri ji foo xam mu ñëw ba ci buntu yontu yàlla Muhammad ci buntu néegam nekk fa bow sànni ko fa pour bu jógee di julli fajar man ci dëgg pour saboter ka rek ñu ne déetawaay soxnaam di jël ay ndig di ko dajale euh, ñëw ba ci yoon wi yonent bi jaar ci fajar gi pour dem jàkk ja mu di ka fa teg yàlla boole ci boole ci soxna soos ci mbugal gi umu jamil lañ koy wax mook abu sufyaan ñoo bokk ndey ak baay euh, ci banu banu abdu samsi lañ bokk yonent yàlla muhammad sonn na lool lool lool lool ci Abu Lahab bi te Abu Lahab daf fi yàgg maa ngi lay yëgal ne Abu Talib faatu na bàyyi ka fi yonent bi gàddaay na bàyyi fi Abu Lahab kon gudd na fan yàgg na fi diggante boobu nag fi ko yàlla yónnee ba ni muy gàddaaye tàggoow la góor gi suba gu mu xëyee moom góor gi mu ngi xool lan mooy metti xale bi te comme bàyyi la ci moom moom du mën a réagir bu ko defee saxaaba yi buñ ko bëggee mettital rek ne aoudu billahi min alshaytani irrajim tabbat yada abi lahabin wa tab muy bëgg a dee nag te loolu suñu suñu alquran ji ci kanamam muy gën a bëgg a euh, ki ci des ci ñi nga xam ne daan nañu noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy Uqbatu ibnu euh, euh, Nadr ibnu Xaaris nadr ibnu xaaris ibnu alqamata ibnu kuldata moom maa ngi ko doon tudd léegi farceur la woon day dem Sham dem mm, dem Faris information ya fa jot a am mu bind ko fa lépp ya fa xew ak roman yaak yëpp mu jënd ko mokkal ko nag ñu bu bu ñëwee Makka na yéen Muhammad da leen nettali ay histoire yu Yuusuf ak asxaabul kahf yooyu mais man am naa beneen information yu ko dàq gis nga dafa am benn buur mu doon dàq lëg di ko dàq di ko dàq ba fakkastalu tànkam ndam tàccu leen nit ñi tàccu yooyu daal la nekk woon ma nettali leen beneen lépp ñu ne ka la mooy dafa am benn géléem ngoo xamee dafa mer topp si ki ka moomoon di ko dàq di ko dàq ba dóor ko rek mu këppee ko mu daanu dee tàccu leen nit ñi tàccu nee na nee na day concurrence ak alquran noonu tam kooku farceur la kooku moo doon wax wax ji yàlla nettali wa qaalu asaatiru lawalina iktatabaha iktatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila qul anzalahu alladi yaclamu sirra fi lsamawati wal ard innahu kaana gafuran rahima yàlla waxaat na ci xaqam ne wa ida tutla alayhi ayatuna qaala asaatiru alawalin yàlla waxaat na ci xaqam ne waylun li kulli affaakin asim yasmau ayati llahi yutla alayhi summa yusiru mustakbiran ka an lam yasmaaha fa bashiru bi azabin alim moom bi aay yi wàccee ci moom benn bés nag dafa mer ñëw ba ci yonent bi lii olof di faral di wax naan boo dee yàlla tawali moom moo ko jëkk a wax moom moo ne yonent bi allahuma in kaana hada huwa alxaq fa amtir alayna min alsamaai xijaratin aw itina bi azabin alim allah yàlla ne du ma ko topp wa ma kaana allahu li yuazibum wa anta fihim wa ma kaana allahu muazibum hum yastaghfirun moom moo janoog asamaan si ne yàlla alquran ji Muhammad andi bu dee bu dee dëgg tawal ay xeer ci sama kaw ma dee tey téere yi ulama balaaxa ñu ngi yéemu ndax moom kay li mu waroon wax bu dee alxuraan ji dëgg la bu bu fekkee dëgg la kay danga waroon wax ne yàlla yàlla nga ma ci xiir mais mu doon dëgg ba pare tawaat ay xeet ci sa kaw loolu yow da ngay perte ñaari yoon de yàlla ne du ko topp wa kaana allaahu li yu'azzibahum yàlla neen du ma leen bugal wante fii te nga ne ci seen biir ndax ormal naa la wa kaana allaahu mu'azzibahum hum yastaghfiruun kooku Nadr ibn Haaris moo ko def def na yu bari sax dañuy bañ mu jël temps bu bari Uqbatu bnu Abi Mu'ayt euh, ku ko gën a bon amul et pourtant xarit la woon ci yent yàlla Muhammad laata l'islam bi benn bés mu invité yent yàlla Muhammad reer yonent bi ñëw toog ci wetam euh, yonent bi ne ko bala maa lekk da ngay wax ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ndax façon daawa bu ne def na ko nu nay wooteel na ko yàlla comme arab dañoo am kerse ñu am gante gan gi du lekk ci seen lekk mu ne ko loolu mënuma ko wax mu ne ko boo ko waxul kon du ma reer insisté ba Uqbatu ibn Abi Mu'ayt ne ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah yonent bi kontaan añ bi mu reeree ba àggal génn dem ndekete benn xaritam muy As ibnu Wa'il dégg na ko ñëw ci moom ne ko dégg naa jëf ju rëy ji nga def yaa ñàkk jom moo ko batum na abi muwaat amoo koy gëm lu dul jirim bi xas koo xasa xas ba mu ne ko non loolu dama ko waxoon rek pour pour pour mu lekk sama lekk jeex na mu ne ko déedéet du yombe noonu faw nga wan waa màkk yépp ni gëmoo waaj mu génne xalaat xalaat xamul nu muy def pour wan nit ñi ne gëmu ko mu ne ko bàyyil ma tegtal la ubay umayatu bnu xalaf la xaaral ma tegtal la luy wan ñëpp ne weddi nga waaj mu ne ko lan la mu ne ko bu toogee ci kaaba ga di jàng jàngam googu mag ñi toog nee ci pénc bi janoog moom ñëwal ba ci kanamam ne xaax tufli ko ci jéewam ñëpp dinañ xam ne weddi mu ñàkk lu muy def ñàkk bopp bàyyi ba yonent bi toog mu ñaadam ñaadam yi ñëw ba janoog moom ne xaax tuf teg ci saaga mm-hmm. yàlla ne wa yawma yaqumu wa yaqulu zalimu ala wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya laytani lam attakhidh fulanan khalilan laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khazula yàlla nee na tay la neex waaye uqbatum nu mu'id bés a ngi jot yawma ya'addu bés bi nga xam ne dina matt azzaalimu tooñkat boobu ala yadayhi ci ñaari loxom wiccax yaqulu mu naan yaa laytani ak a neexoon ittaxastu ma jàpp ma ar rasuli ak yonent yàlla muhammad sabilan yoonu lislaam yaa laytani ak a neexoon lam attaxis du ma jàpp fulaanan diw mu doon xalilan sama kii sama xarit ndax laqad adallani réeral na ma ani zikri ci diine baada is jaani gannaaw bi ma ci duggee ba pare waaye fa koy réccoo du ndax réccu boo xam safaraa ngi nii nga war ko inauguré xam nga boo fa réccoo itam kenn du la faale mm-hmm. te kooku tuuboon na waaye jom-jom lu moo tax mu dem tufli yonent bi yemul ci loolu nag mu toogaat benn bés pour wane njàmbaar ak ngóora waa Màkka toog ñu ne waaw yéen Muhammad mii di di di julli rek ci kaaba gi di julli ci kaaba gi diw de dafa rayoon gëléem ba sébbareet saa nga ca buntu këram kan moo ko mënoon a jël ñëw teg ko ci kawam uqbatu bii nii may wax léegi ibnu abi muad volontaire ne man pour bëgg a nit ñi ne gëmatul fekk sa bërit soo xam ne rey nañu gëléem ga ba mu commencé nëb defi sax mu gàddu ko xam naa amoon na doole naan dar dar dar ànd ak loolu ba ñëw tiim yonent bi fi mu nekk ci kaaba gi julli di julli naka la bàyyi ba mu sujoot mu jël nag sa bërit soosu muy mbaxu nag bi mbaxu gëléem gi tekke ko xam nga ne mbaxu gëléem lu mu néew néew néew ëpp na quarante kilo bi mu ko ko tegee yonent bi nag mënatu la siggi waxuma sax liy tuuru siit ci kawam ak sax yi tuuru ak xet gu naqari gi léegi nag moom mu def demi tuur moom Uqbatu ibnu Abi Mu'ayt dem nag ci mag ñi Abdullah ibnu Abbas euh, euh, non Abdullah ibnu Mas'ud bi solo xadiis bi nee na raaytul kuffaara yatamaayaluuna min ad-dihki maa ngi gis yéefar yi bi mu demee ñuy ñuy jaayu di ree ngir kontaan ci li góor gi Utbata def yonent Yàlla Muhammad mm-hmm. yonent bi ci yaram toog fa toog fa ab diir te saxaaba yi ñëkk ci seen kenn amul fitu dem teggi ka ndax ku ko teggi àdduna tukki mm-hmm. Fatima boobu xale bu ndaw la moo daw naan yaa abata ay waay papa ay papa ay papa nekk xale bu ndaw nekk ci sévéré di dar dari di dar ba teggi ko ci bopp papa ji li ci des tuuru ci bopp bi taxal bopp bi lay san yaram bi yëpp yàqu Fatima di jooy naan papa lii metti la papa lii metti na mu nekk isbiri ya ya ya ya ya Fatima fa inna allaha jaa'ilun li abika al maxraj doom noppil lu mu yàgg yàgg yàgg sa baay yàlla dina ko génne ci jafe-jafe yi mm-hmm. est-ce que génn ko ci mu ànd ak Fatima dem mu sëgg mu raxasal ko boppam mu changé ay yéreem sanguwaat yonte yàlla Muhammad daj na lii ci utbata bii may wax nii ibnu abil mu'ad ak ku ñuy wax euh, rukaanatu ibnu abdin ibnu yazid moom laa waxoon ne moo doon bëre ak yonent bi sallallahu alayhi ñii nag la alaaji malik ci xereñam tënk ci bayit yu gàtt yi mu ne ashaddu durran ñi gënoon a tar min aada ci non yi ci loraate abu lahab la di ko daan sànni yu bon ci guddi wal aswadaani ak ñaari aswad yi muy abdul yaxus bi ko doon saboté aswad ibnu abdul yaxus ak aswad ibnu matlab ak walid ibnu mughira muy góor gi doon dem ci moom pour yedd ka mu jël doon xalaat ba mu gi yàlla ne sa uslihi saqar ak xaaris ibnu qays bihimi ci ñoom la bokk ak ku ñuy wax nadr mooy góor gi daan lépp ak zuhair ibnu abi umayya ak abu qaysin ak nabi ak munabbihun bi nga xam ne ñoom dañ daan tiim yonent bi naan kaan waaw yow nga ne yàllaa la yónni ñu ne waaw mu nekk ñu daanu ci suuf naan keng keng keng yow yàlla dina fi romb mag ñi di la yónni yow xale bu ndaw naan keng keng yow xale ci suñ kanam nga juddoo keng keng keng gi ko